waaw man ak ñoom moom weesu nañ ay soppee ay fans ak yooyu man ak moom famille lañ man ak ñoom donc ñoom depuis depuis ma door ba tey ñi ngi may jàppale nekk ci sama wet di ma dooleel fu ma tëgg yaa ngi gis ñi ngi bàyyi seen yitte depuis quatre ans trois ans ñi ngi five te chaque samedi ñi ngi bàyyi seen yitte di ñëw donc ñoom it yii la ñu am ci ñun moo tax bi ko Mame Fallou organisé ma ne c'est une initiative ma ñëw bégg ak soppe yi football nag ñoom pour wan leen ne mën a ñoom seq ñu ay wala ay musique ak yooyu dañu seq lu lu lu loolu quoi. Mm. boo seetloo li nga fi gis famille la. Mm. waaw mm. mu mel ni yemul ci lii parce que gis nañu aussi tamit da nga koy yaatal daan nga dem ba ñaari tali. waaw di déplacé wu fan si club bu nekk rek ba ci gàddaay. gis naa aussi tamit effort yooyu yaa ngi koy def. waaw ñu ngi fépp la ñuy def fépp la ñuy temps yi def nañu gàddaay. xam nga ma football ak sama sama grand frère yi nekk foofu noonu. donc euh, war nañu fan yële Abou yóbbu na ma fi Kaolack aussi ma def si la ñu dund parce que famille la daal. Mhm. man ak ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi tey it kenn ku nekk ki lay bëggee mhm. da koy safoo. Mhm. ñoom lii la ñu am ci ñun. yi tey bari nañu ci album laa nekk dama doon enregistré. Abo Gaye dañu doon enregistré. mais dama ne Matar nañu bàyyi tey tuuti dem tamit xama parce que ñoom it dañuy bàyyi seen yitte duñ ñëwal kon bu ñu organiser c'est tout à fait normal ñu nit ñu bàyyi tey ñëw football nag ñoom waaye match bi bu ngeen attul naa leen rey de ñu ngi ci ñaata 4-2 4-2 waaw dégg dégg leen dégg leen nga ni daanaka day xaw a xat trop ñu gis nga jëmal ay date le 8 le 9 le 10 war a dem fee di waaw bon événement la boo xam ni bu ma jumul demoon nañ fa daaw géej. Mhm. ren aussi ñu fay demaat muy le huit le neuf le dix. Mhm. donc ginnaaw suba la ñu war a dem pour bégal leen benn association boo xam ne ay sénégalais ñoo ci nekk. donc ñu war fa dem rek bégal leen du man rek am na yeneen artistes sénégalais yu ma war a àndaaleel ñu dem fa suma rakk Ousmane Bongo day dem. Mhm. Euh, ñu bari war nañu fa nekk. donc ñu wax ñu wax waa Côte d'Ivoire nañ ñu xaar Sidi Diop mi ngi ñëw bégal leen. bu ñu ñibbi fi aussi wéyale suñu programme décembre fii ci Dakar. waaw parce que le 15 man dama noppal le 15 tamit da ngay euh, laa doon joué. five mais le euh, le 16 boobu samedi boobu dafa fekk ma war a joué ñaari gala. waaw dama war a joué gala ak Jaspra euh, Oud. Mhm. King Fat Place bu ma génnee King Fat damay duggaat tamit ci beneen salle. Mhm. joué waa Cofina banque Cofina. Mhm. donc le 16 boobu du ci mën a joué five moo tax ma wàccee ko def ko le parce que ci décembre duma leen may dara. Mhm. nu ma leen mayewul dara ci ci ci bi. ñoom it soppe du leen may dara. man ak ñoom ba décembre bi jeex. le 23 a demaat Thiès. waaw balaa waaw le 23 tamit ma war a demaat Thiès. bégal waa benn dëkk ñaari gaar di nuyuwaale sama frère ñoom bu donc gars yëpp ñu ngi may xaar foofu artiste comédiens yi dawal kotu jakarta yi taximan yi chauffeur kalando yeeg sama yaay ak sama papa yi ñëpp a ngi may xaar donc guddi guddi kajoor la foofu ci camp Sapeur bu cees ma ci woo képp kuy sama soppe ba Tivaouane maa ngi leen di invité incha allah le 23 décembre foofu ci camp Sapeur bi. date bu mag bi le 24 juin waaw balaa boobu balaa boobu euh, dañuy dañuy dañuy war nañu def aussi euh, le 29 war nañu jouer Dakar le 24 décembre maa ngi soirée maa ngi def soirée all white foofu ci five le 25 décembre tamit il se peut ñu dem Baaramundi le vingt euh, trente maa ngi war a jouer benn concert fan ak ay fee fan bi nga xam ni jamono ji ñu ngi nekk di yëngal secteur boobu ma war fa dem le trente incha allah décembre le trente et un décembre maa ngi jëm euh, place de l'Obélisque ànd ceeg mairie ville de Dakar donc di nuyuwaale sama papa monsieur le maire euh, mu jël bis bu toll noonu teg ko ci sama loxo donc du yomb le 31 décembre maa ngi woo soppe yëpp ñu génn ci vingt deux mille vingt trois tàbbi ci 2024 ak jàmm te yàlla bu ko kenn ute buñ fa jógee nag génne album bi incha allah doog waajal fi maa ngi leen xam nga fan yële defoon naa fi benn clip bu ñàng mais génnagul. fii <laughs> oh. gars yi ma wër nii xam nañ ko. ñoom fekkee nañu clip bi. liggéey naa benn affaire boo xam ne xam naa ne mais xam nga sama yëf dama ci yàqamtiwul dara. liggéey naa ko teg mais war na génn ci décembre bi. Mhm. nañu ko xaar. war naa am tamit beneen single bu doy waar boo xam ni maa koy maa ngi koy togg ñoragul mais bu ñoree bëgg nañ leen ko jox ci Noël bi mm-hmm. incha allah album bi war na génn bala maa dem Zénith. Mm. may wax nag la le 29 juin incha allah di Diop mi ngi Zénith de Paris. waa Paris ko doon laajte ndax daaw suñ tournée bi abu bu ma jumul defuñu Paris. Mm-hmm. Italie lañ def Allemagne mm-hmm. war itali bi Genova Torino Milan donc Paris gëj nañ fa depuis 2018 bu ma juumul. donc Zénith bi dat la boo xam ne maa ngi ciy woo. waa Paris gépp mhm. sama yaay yi sama papa yi jeunesse bi sénégalais yi mhm. ah moodu moodu yi mhm. faatu faatu yi ñëpp maa ngi xam ni c'est grand rendez donc waa Italie waa Allemagne Suède ah sama yaay nee na nee na Diallo Tagna maa koy woo tamit ci bis bi muy sama yaay ju baax. Mhm. donc Europe bi yëpp maa ngi leen di wax nañ jàpp date boobu. Mhm. le 29 juin Sidi Diop mi ngi Zénith na ci ñëpp ñëw jàpp te xam ne feetu sénégalais la. Mhm. feetu africain la feetu seen doom la na ci ñëpp ñëw incha allah ñu def ko guddi gu rëy. d'accord Sidi par rapport ak parcours bi nga def. ak vraiment Sidi nekk koo xamante tey carrière boo koy wax doon na koo xam ne dafa lëndëm hmm. mais à xamante ne daal tey du ma dañ ko teg loxo mais dafa xuus ba ak sa fii par rapport ak démb sa benn nawle taxaw mu di Waly ñu koy nuyu. Mm-hmm. ci kaw chaîne mu ni njàpp yow ak sa patron samay doom ngeen kàddu googu. waaw waaw bon loolu façon de parler la rek je pense yow wax nga lépp bu ma juumut fi ma dooree ak si ma si xam nga ne man jàmbaar laa. man mm. xam nga sama yëf dama ci yàqamtewul dara. liggéey naa ko teg mais war na génn ci décembre bi. Mm-hmm. nañu ko xaar. war naa am tamit beneen single bu doy waar boo xam ni maa koy maa ngi koy togg ñoragul mais bu ñoree bëgg nañ leen ko jox ci Noël bi mm-hmm. incha allah album bi war na génn bala maa dem Zénith. Mm. may wax nag le 29 juin incha allah di Diop mi ngi Zénith de Paris. waa paree ko doon laajte ndax daaw suñ tournée bi abu bu ma jumul defuñu Paris. Mm-hmm. itali lañ def Allemagne mm-hmm. war itali bi Genova Torino Milan donc Paris gëj nañ fa depuis 2018 bu ma juumul. donc Zénith bi date la boo xam ne maa ngi ciy woo. waa Paris gépp mhm. sama yaay yi sama papa yi jeunesse bi sénégalais yi mhm. ah moodu moodu yi mhm. faatu faatu yi ñëpp maa ngi leen di invité te xam ni c'est grand rendez donc waa Italie waa Allemagne Suède ah sama yaay nee na nee na Diallo Tagna maa ngi koy woo tamit ci bis bi muy sama yaay ju baax donc Europe bi maa ngi leen di wax nañ jàpp date boobu. le vingt neuf juin Sidi Diop mi ngi Zénith na ci ñëpp ñëw jàpp te xam ne feetu sénégalais la feetu africain la feetu seen doom la na ci ñëpp ñëw incha allah ñu def ko guddi gu rëy. d'accord Sidi par rapport ak parcours bi nga def. Mm-hmm. ak vraiment Sidi nekk koo xamante ni tey carrière am boo koy wax doon na koo xam ne dafa lëndëm dafa xuus jaar. Mm-hmm. vraiment yoon bi métti woon na bëri xaaxaam mais à chaque fois ba keroog bi nga koy wax naan wóolu naa yàlla vraiment. Mm-hmm. Sidi doon xamante ni daal. tey du ma ni dañ ko teg loxo mais dafa xuus ba ak sa fii par rapport ak démb sa benn nawle taxaw mu di Waly ñu koy nuyu. Mm-hmm. ci kaw chaîne mu ni njàpp yow ak sa patron samay doom ngeen kàddu googu. waaw waaw bon loolu façon de parler la rek je pense yow wax nga lépp bu ma juumut fi ma dooree ak fi ma egsi xam nga ne man jàmbaar la mm-hmm. te nag yàlla dafa dogal ni man képp ku ñëw ci man rek dama lay xool nu ma lay yëkkatee. Mm-hmm. barki dem bi may joué Sorano ñu jóge ci njabootam ñëw ci man. dama leen a yëkkati. man noonu la ma yàlla bindee taalibe Serigne Touba ku jóge ci moom tàbbi ci man dama lay yëkkati kantaa noonu nag man du ma minimiser doomu jàmbur te man du ma fisu ma Omar Diop mooy sama papa benn papa la sama papa bi ma jur jëndal ma xar ngente ma tuddee ma Sidi Diop kooku mooy sama papa du ma grand frère la et c'est un gars que bien mi ngi ci yoonam te ku ne xam ne fi mu jëlee musique ak fi mu ko yóbbu je le respecte je l'aime gis nañ joobam gis nañ li muy def rafet na trop mais suma grand frère la sama nawle artiste la man du ma fiisu kenn ndax te patron la damaa yor sama orchestre di fay ñëpp kon boo ma fiisoo rek wala nga def dara di nga fiisoo ñii ñëpp te ñii ay kër la ñu yor te man maay seen patron ñoom donc pour tëj wax benn baay laa muy Omar Diop. ñu wéyal match bi. am na solo. Ah, am.